jërë ngeen jëf euh, yéen ñi faral di seetaan Yeumbeul Vision TV ñu toog ak benn kilifa bu mag ñu koy wax Serigne Makhtar Niass solution euh, ku ko xam xam ko xam ne borom xam-xam mag a mag la mu nekk koo xamante ne ñëpp ñu ngi koy bàyyi xel ñu war a waxtaanee lu bare bëri ci actualité ak ci mbirum ñaan ak làmb ji yoo xamante ne làmboon na ak actualité nañ ci waxtaan ay leeral dina fi am incha allah ci lépp lu muy liggéey cheikh bi ñu ngi lay ziar. yal na yàlla nangu ziar. ñu ngi sant yàlla alhamdulilah. ñu koy defee rek euh, dem seeti kilifa yi tey ñu tombeek yow seet see la émission nga jafe jot lool ñu fexe ba jot la fekk la fii nii ci parcelle ñu ngi am euh, contentement ci dalal gi euh, cheikh bi ñu bàyyi la nga présenté wu baado auzu billahi samil alim min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallama ala asrafil mursalin mbokki jullit yi mbokki internet yi mbokki àdduna ñoo ngi leen nuyu ku ci nekk sa tur ak sa jëmmu gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Makhtar Niass solution jógee fële ki nga xamante ni mooy Kaolack lew nañu seen lew nañu seen bu ñu ko waxee xel yëpp daj na xadara bu sell ba muy xadara maam Khalifa Niass di euh, pee boo xam ne nii peewu mbóot la peewu euh, niñ koy euh, peewu mbóot la waaye peewu ñaan peewu lislaam buñ ko xamee sëriñ Makhtar Niass képp ku ko ku koy dégg rek xam ne moom mooy porte-parole jeune marabout bu lew nañu seen bu Ousmane Sonko. macha allah ci turu Ousmane Sonko boobu ci la ñuy dugg si sax balaa ñu ñëw ci actualité ci mbirum làmb ji ñu gis ne fan yi passé def nga ci beneen émission wax ci wax ju rëy ci mbiru Ousmane Sonko defoon nga ko ci mbirum Mimi Touré euh, tey jii kan mooy Ousmane Sonko. usmaan Sonko suñ koy wax mooy ki nga xame ne ne moo làmboo dëgg làmboo njub waxuñ ko nag suñ naf su bakkan ndax ñun du ñuy doxee noonu képp koo xam ne ni pare nañ pour ànd ak moom rek ni ñuy àndeek moom dañ ay critères la ñuy xool ci moom. buñ xoolee critères yi mu méngoo critère jullit ak noo mën a mel ñun jàpp nañ la léegi moom xool nañ ko critères yi nekk critère jullit ñu xoolaat ko gis ne kii yàlla dafa am benn mission bu mu ko chargé te mission boobu noonu mooy Afrique du Sénégal moo tax damay mer démb ba fan yee ci gannaaw bi mu commencé di def ay ay euh, kii nemmeeku tour wala dem seeti askan wi seen gox ñu mel ni guerre moo xew ci réew mi pour lan. est-ce que nekkul ne Ousmane Sonko daf nekk koo xamante ne dafa yee fitna parce que gis naa ñu bëri naan dafa bëgg a yëngu pour gars yi dal ci kawam mu euh, mu bàyyi projet bi. waaw xam nga kon li ko doon kon euh, ki fi nekk tey ñu ne mooy njiitu réew mi kon day yee fitna kana loolu moom moo ko njëkkee. dugg ci otoom ne day def ne meeku tour barré circulation bi nit ñi taxaw foofu noonu tëpp bi kenn taxawul jël benn beneen almet kos ko waxatuma laa ñuy dóor ay lacrymogène. est-ce que ñoom est-ce que ñoom ñaa ñoo bokk président mais tey ji fi mu ne nii kanaa xamoo ne moom moo waroon na jéem a fexe Ousmane Sonko deram bii ak bakkanam bi ñoŋ xam nga lu tax moom lañ ko dénk fi mu ne nii sécurité moom moo ko waroon a yor man euh, kii nu mu tudd euh, gendarme yi li def mën naa ko mën naa koo ñàkk contre ci benn côté fenn rek laay ànd ñàkk ànd ak ñoom mooy biñ jëlee ay réclamation di leen ko di ko di ko dóor ci cortège sam du jaaduwul. da ngaa jàpp ne Ousmane Sonko amul sécurité. Ousmane ya am na sécurité ndax yàlla ànd ak moom ku yàlla ànd ak looy ragal ndax tey jii biñ defee loolu noonu way takk der taxaw ak moom di ko jàkkaarloog moom GIE dans la GIE di ko wax dëgg ne ko nag fii lan ngeen fi gis lu débordé loo xam ne ni war ngeen a mën a jël di ko lacrymogène di ko di ko di ko dóor suñu cortège koo xam ne yeewut fitna dafa dem pour nemmeeku ay nit woowut kenn nekku ko kañ dem cortège bi muy dem sax maanaam yëgalut kenn ñam doon ànd ak ci ci ci ci politique yi da nga koo gis Déthié Fall gis nga ko gisoo Khalifa Sall gisoo gisoo Ahmed Aïdara gisoo kenn ngir lan moom na jug dem doxi li nga xamee ne ni moom la war a dox ñi mu war a rencontrer mu rencontrer wax leen projet bi ak yéenim ci réew mi ñu ne loolu du fi am mais ban Sénégal lañ nekk Sénégal dafa am ñenn ñu ko moom ñii ko moom ñu war leen koo jox wala ñii kii war ta wax wala kii war ta wax nañ arrêté li ñuy def nañ arrêté li ñuy def nañ bàyyi nit ki defu leen dara bu yoon amee ak moom rencontre nañ ko bàyyi yoon problème am na nee nañ problème am na nañ bàyyi ba yoon décidé woo ko ñu toog ñu laaj ko ba xam li ñuy wax am na wala amul mais taxaw nit ki di dem nga ne ko doo dem di ko baaree muy ñàkk di nañ gëm yàlla gis nga nguur buy daanu képp ku yàlla nattoo feebul da nga ànd ak moom te man li ma gën a métti nag fi mu ne nii ñi war a wax yépp ñu ngi ne pat toog di seetaan ñun nag jeune marab mouvement jeune marab bokkuñ ci ñooñu ndax ba muy métti keroog biñ njëkkee convoqué Ousmane Sonko ba nar koo jàpp keroog ñëw njëkk a def li nga xamante ni moom mooy euh, nuñ euh, point de presse wax ci pare woon nag pour dem kaso ndax dañuy jàpp comme comme boo waxee dem kaso nañ dem kaso amul problème. su ma la déggee dafa mel dafa am benn mbooloo boo xamante ne ay marabu la ñu leen ci ginnaaw Ousmane Sonko marabu bu lew nañ ña seen waxoon nañ ko suñ émission bee danañ ko waxaat. mbooleem koo xam ne ni yaa ngi lappi-lappi nekk Kaolack ne yaa ngi politique te di fa ñëw ngir def fa dara te rencontré woo jeune marabu bu lew na ñeseen bii mënoo am dara ndax li ci nekk moo bari ndax ñun nekkul ñun kese bépp kër diine bu nekk ci ci ci ci réew mi fexe nañ ba am ci ñoo xam ne ay jeune marabu lañ comme ñun ñu rencontré leen jéem a waxtaan ak ñoom def mbir mi muy benn ku dëgg tax a jug rek ñu jàppale président Ousmane Sonko Sonko. Euh, comme que ay xale ngeen wax Baye MC Niass lan la seex ak yéen ci mbir mi. Euh, sun baay la sun baay la ndax seex al islaam Haji Ibrahim mooy way waajuram ñun ñu ngi bokk si sel silsila maam Alaaji Abdoulaye Niass maam Khalifa Niass ak ki jur sun papa ñoo bokk ndey ak baay kon ñun sun baay la. MC maanaam nit koo xam ne la nitu valeur la bépp jeune boo xam ne nii tey jii yaa ngi dox ci. Euh, mbiram politique nit ñi xam la nga nekk Kaolack mën na nañoo wax ne mën euh, mën na jaaree si si yow ndax dafa wane yoon nekkul ne sëriñ laa rek damay toog euh, sama maam liggéeyal na ma te wallahi bu toogoon Medina bàyyi toog deful dara dana dund njabootam dana dund waaye dama jàpp ne réew mee ko ñor moo tax ku réew mi ñor nag na nga jóg arrêté arrêté lii ndax mu arrêté benn yoon benn nag dañ ko wax mu mu leer bu dee baatin la am nañ ko ba mu doy ndax jéemoon nañ fi di indi ay sëriñ nee nañ pour Ousmane Sonko nangam ak képp ku repp rek yow yaa yëkkati xaatim di bind turu Ousmane Sonko ne yaa ngi ko ciy dugal. dama dégg ci benn émission seen benn morom mu ne dafa am yu def Ousmane Sonko actuellement ba xam loolu danga koy confirmer wala. Ousmane Sonko xam nga euh, liggéey nit yow mi sax mën nañ laa liggéey mais est-ce que dana jàpp la ñuy wax. xam nga nit ku nekk mën ngaa nekk ci kawam suba ak ngoon guddeeg bëccëg waaye la ngay def est mën naa baax. bu la neexee liggéeyal bay bëgg a dee boo loo mën a def tey jii nii def ko am na couleur boo xam ne nii juddu na boo xam ne nii ñun ci li ñuy dox lenn kese la comme sëriñ lañ ñu jàppee mbooleem loo xam ne nii lu fi maam yi bàyyi la woon te am nañ ko de gis nga kay mooy suñ maam maam Khalifa ñas te gis nga problème yëpp yëpp yëpp bu amaan ñaar yii bu taxawee ñëpp danañ randu lii dañ ko war a def léegi wala lii ñu war koo dindi léegi baatin boobu nag yóbbu ko mu ngi fi te maam maam Khalifa Niass moom mooy suñ maam ndax ki jur baay ak maam Khalifa ñoo bokk ndey ak baay. su ma leen déggee dafa mel ni Ousmane Sonko da ngeen jàpp dañ koy néewal doole ba bëgg ko indil ay fitna. loolu moo am ba Ousmane Sonko bi ñu ko jëlee nu mu tudd euh, fële fi mu njëkkoon a nekk euh, kii a demen euh, fa la nekk impôt demen bañ ko fa jëlee ba léegi si xeex ko rek ci la ñu nekk te xeex biñ koy xeex chaque jour yàlla nga koy suturaal di ko di ko di ko di ko di ko yëkkati yow yaa ngi xeex nit ki pour mu daanu yàlla nga koy pour mu jóg kon yow defar rekil nga xam ne ni kii yàlla moo ànd ak moom lim yëf gis nga bu di woon wallaahi yëfam yi fay na yàlla du ànd ak tooñkat du ànd ak fenkat du ànd ak ku dëgguwut loolu nag yàlla Séné xolu sénégalais yëpp mu jël ko dugal ko seen xol yi ba pare muy ànd ak muy ànd ak moom ñaata at chaque jour rek muy gëndiko man de sëriñ laa te tey jii su ma àndoon ak moom wallahi su ma génnee ci mbodd mbedd mi nii soo may tuut otoom du jàll ndax mbooloo mu ko dar te mën naa romb jàll man yàlla moo ko may loolu nañ ko ko nangul nañ ko nangul loolu may ak yàlla la maa tay ak yàlla la maa tay ak yàlla la Ousmane Sonko maa tay ak yàlla la ku mu neex looloo am ku mu naqadi looloo am nañ bàyyi jàmbur rawatina réew mi nag ceegar ñi war a wax nag fi mu ne nii ñu ngi ne patt nag te yàgg nañ koo tooñ te nit ki nag boo koy tooñ di ko tooñ ba mu sës si miir bi ah bu fayoo yow yaa ko poussé pour mu fayu de te ñu ngi koy tooñ nag pour yu pourtant ñu bëree bëri dañoo jàppee Ousmane Sonko mënul dem élection. ci euh, tànk yi wàcce ko la nekk. waaw lu tax mënut a dem élection. ah dégg naa ñu ne euh, moom bu hmm, amul sens du dem amut ak problème yoon ndax condamné wuñ ko xam nga tey fekkoon ne dañoo jël décision ba condamné ko ne ko dañ koy def nangam su boobaa moom dañ yoon am naa moom pare la ba pare mënatut a présenté wu mais actuellement ba ni ma lay waxee nii kenn kon condamné wu ko. dégg naa fan yii passé da ngeen kéré ne Ousmane Sonko dañ koy woolu fekk kenn woolu ko pour ngeen yëngal réew mi. waaye kéré wuñ dara ñoom ñi gis kii nu mu tudd presse bi bi nga xamee ne ñoo ànd ak nguur gi ñoom ñooy def loolu gis nañ ko heure bu waajee pour war a def dara rek ñu ñu ñu def ko. ñu ñëw de kere ay wax naan dañ ko woolu dañ ko woolu nangam ak nangam te ñun ñu ngi xaar gisuñ benn këyit nañ ñu may jàmm ñu liggéey gis nga ay projet projet caaxaan yi nañ ko arrêté réew mi fi mu toll fi mu ne nii méttiwaay bi dafa ëpp courant ki doon fay trente mille franc mu ngi fay léegi soixante mille franc ki doon fay euh, nuñ koy waxte ndox euh, nuñ koy vingt mille francs yaa ngi fay soixante mille ceeb bii nii doon jar quinze mille francs fi mu ne nii mu ngi ci vingt mille diwlin bi waxi nopp trente mille du la ko may location bi seer dund bi seer baykat yi di bëgg a dee mais duñ wax ci loolu nañ wax ci loolu nawet biñ génn fii inondation xaw naa rey nit ñi ñu topp benn nit di ko ngawti nga koy suba ngoon ne nañ affaire justice affaire justice nañ ci génne seen loxo ñu bàyyi toog justice justice bi tamit na indépendant ku fi nekk tey bu ëllëgee da nga fi jógee keneen dana ñëw te képp koo xam ne ni nag mus na koo jàpp di ko bundu xataal war ni ko war ni wala nga koy pareel dara boo ko xoolee ba ci biir nga xool la koy dal yàlla ànd ak moom nañu ñu bàyyi. dinañ ci ñëwaat ñu continuer tuuti rek ci euh, mbir yoo xamante ne am na ci réew mi mu nekk rey bakkan yu bëri yi gis nañ yëmbal fan yi paase yàggul dara bërki dem am na benn mer boo xamante ni benn dëkkandoom moo ko rey maanaam rey gu métti yi ci dëkk bi. nit ñi dañoo mer xam nga nit mënta boole maanaam ñàkk ba pare di dégg yenn yi xam nga maanaam tey jii mën ngaa ñàkk nga nekk si sa sa réew mais na na indépendant ñi nga xam ñoo nekk ci nguur gi di yërëm ñi nga xam ne ñoo nekk ci gannaaw su boobaa nit ku nekk li mu waroon a def rek mën na ko bàyyi mais nag yow mën ngaa ñàkk tey nga war a xëy war a jënd benn kaas café mënoo koo am nga toog dégg ñu ne benn ministre sàcc nañ këram xaaju milliard genn milliard bu manqué tuuti fan la jëlee xaalis boobu ministre ñu ne ministre conseil kese la fan la jëlee xaalis boobu réew mi ñu jàpp ko di ko tong-tonge di ko séddee nit ñi seen xol si boppam. ah, ah mais moom moom mooy géwélu état bi aussi. waaw waaw waaw mais géwél ñaan ñu may la waa d'accord ndax tey ku nekk sa maam dafa am lu mu baaxoo. yaa ngi dégg mais ñaan nuñ koy waxee géwél kii liggéeyoo amoo benn poste boo xam ne nii da nga liggéey wala leneen ko ministre conseiller nga am xaalis boo xam ne ak ay kër am ay parking oto mais xale yi noo def danañ mer te li gën a yéeme mooy. dañuy dagg seen liñ am di ko dajale di ko dajale di ko dajale ba mu baax ñu dem ñu ne dañuy dem Europe buñ demee ñu dellu siwaat leen ci réew mi te joxoo leen liggéey mais kan moo indi boobu ah léegi yow entreprise yoo xam ne sénégalais yi ñoo ko moom di jëloon di jël ay ndaw war leen a liggéeyloo ndaw yooyu nga fexe fexe fexe fexe ba tëj entreprise boobu di ko teg ay ay ay fiscal di ko di ko di ko noot di ko di ko lii ba entreprise ba daanu xale ya ca nekkoon nekk di taxawaalu ci mbedd mi buñ amul dara nan la ñuy def buñ gisee luñ fëkk danañ ko fëkk man balaa meewu ma leen de njiit dafa war a mat njiit njiit dafa war a mat njiit. ah loolu leen tuumaal de gars yi neen waa Sonko moom maanaam mbirum na rek lañ fi indi de. waaw xam nga man li ma gën a neex ci mbir mi mooy buñ ne ko fit nag na rek lay indi ah mosoo dégg ñu ne Ousmane Sonko ñoñam yi ñoo dem dal ci kaw nit. ah mais saaga yu ñaata nit lañ fi jàpp ñoo xam ne nii seen seen seen profil profil Ousmane Sonko lañ ci defoon bi bi yoon bi bi biñ leen kalaamee yóbbu leen ci yoon biñ demee ba dëkk ba ba xool leen ba xoolaat ne ndeysaan amuñ sax carte Pastef di yàq suñu der pour la amuñ problème lii mën miin nañ ko. yonte bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yónnee ba mu ñëw ci réew mi bi mu commencé bi mu ñëwee si àdduna bi pour véhiculer l'islam lu ne wax nañ ko njabarkat la day ah kat la day def lii day def laa anamu tey fan la diine ji mujj du dëgg diiney dëgg yonent bee ko yor politique dëgg Ousmane Sonko ko yor. yow daal maanaam da nga jàpp actuellement politique bu ko dee wax Ousmane Sonko moo tax. moo changé li fi nekkoon bu njëkk lan lañ xamoon kuy politique ñëw jël ay million eh, eh, di ko xëpp nit ñi Ousmane Sonko mën naa dem fu nekk ñëw. dana la wax li mu bëgg a wax lan laa fan lii laa yéene sénégalais yi fii laa bëgg yóbbu Afrique nangam ak nangam pare jóge fa dem au contraire yow yaay jël xaalis di ko jox. au contraire yow yaay jël xaalis di ko jox man mii biñ fi amee problème ak yooyu noonu sécurité mi ña ko doon fay chaque weer dama daan cotiser te man am na ay yoo xam ne ñoo may jox te man maa yëkkati sama xaalis di ko jox damaa am gis nga nit ki li muy wax danga koy déglu. Ousmane man gëm naa ne Séné àdduna bii nit bañu ko fi mais dañ koo dégluwul képp ku ko déglu ku nekk li muy wax danga xam ne lii dëgg la ndax xam nga lu tax ak kàddug tey dañoo méngoo. Ah, naa gaa naan ku bañ ku bëgg ku bañ Ousmane Sonko convoqué la ko déglu de. waaw déedéet waaw xam nga kon loolu boo jubut kay. dinaa ko bañ a ànd moom daal bu déglu waxtaan non dafa nekk ci dëgg rek xam nga alquran tey jii gis nga bi mu wàccee. ña ko ña yéeféer yi ko xamee ne ni nanguñu woon a njub wala bëgguñu woon a jub buñ déggee kuy wax alquran sax lu ñuy def jël ay xeer ak ay lii di la sànni mais boo ko dégloo moom dan boo dégloo alquran bu baax xam message bi muy indi da nga xam ne kii nii ndeke lii moom mooy diiney dëgg. dinañ ci ñëwaat ci mbir moom mënoon cee jeexal léegi. ñu ñuy wax yow ci mbirum làmb. waaw waaw wàllu làmb moom sëriñ bi euh, man daanaka dama koo ba ndaxte ah, amul dafa amul njëriñ amalu ma njëriñ man ndax wax dëgg yàlla réew mi dafa nekk réew moo xam ne bu réew mi doon dox dëgg dëgg dëgg làmb luñ war a interdire la Sénégal. làmb Sénégal. ndax violence bi bu fekkoon ne dañ ko def jàmm ñoom ñaar ñi nga xamee ne ñoo jël seen avance bu ñuy jàkkaarloo bëre jour ba jot ñu bëre ñoom ñaar ku nekk ci yéen ñu jëflante ñoom ñaar bu kenn daanoo keneen ki yëkkati ko ngeen akolaat ko. ngeen toog ci plateau waxtaan ne lii kat comme liggéey la man ak kii ñoo ko seq yéen ñi nga xamee ne yéen suñu gannaaw dal leen. maanaam su ma la déggee kon violence moo tax nga bàyyi. kese du leneen. wallahi amoon naa ci ay mbër yoo xam ne nii dama leen doon ñaanal yàlla ñu seq ci ñu seq ñaan yàlla yu bëri am na ñoo xam ne nii yàllaa ma leen defaloon ma bëgg leen. dañ daan bëre ma jël lu ma war a def sax di ko def te duñ ma yëg seen combat yu bari yoo xam ne da ngay dem ba ci biir làmbu ja ma xam ne kii dañ koo fas te xam naa ne fay na ay sëriñ ay millions. waaye lu ndawa ndaw laay def li may def rek pare jo bu fi xale yi nekkoon sax dañ la ko wax ay mbëri mbër yoo xam ne nii dama leen doon ñaanal yàlla mais dama koo baax ndax lan ray mii ay ray gaañante loolu doxalu réew ak ak combat bi jeex gaay këf xam nga yooyu xam nga maire bi nga xamee ne nii bu yoroon dara wala doomam yor dara du dem foofu di jaay xamal ne tey jii la muy jaay moom la war a jaay bu ko jaay pare dem jënd ci fonde wala mu jënd ci cere yóbbul ko njabootam gi ñu dundee ko nga dem këf ko léegi njabootam googu noonu fanaanoo xiif ku ci feebaroon dee ku ko rey amul njëriñ ba tey ci mbirum naa yor nga ay ñaan yu sëñ bi listixaar waaw macha allah listixaar moom jamono jii ñu toll nii ba niñ koy waxee nii ah duñ ne ñoo ko dàq ci réew mi de waaye bokk nañ ci ñi nga xamee ne nii li ñuy listixaar lu wér soo koy soo koy xool boo ñu seet si wut gaw ma ne danga xam lu wér ndax listixaar bi ñu yor listixaar boo xam ne la Alaaji Abdoulaye ñas moom moo ko yore woon bàyyi ko fi nekkul lu ñuy làmbaatu ñun lew nañu seen lañ dëkk dama lay wax ne la ñun duñ sëriñu tariyaax kilifa diine lañ dañuy am ay soxla ci ci ay nit dem di leen ko tawat yaa ngi dégg ay problème day am ñu woo ñu wax ñu ko ay sëy yëngu ñu dem lijjanti loolu ñëw toog. maanaam sëy bu yëngu rek mën ngeen ci am lu ngeen ci man def. xam nga bi si sëy moom bi si njëkk mooy bu yëngoo ci ñaar ko seq ki la wax la ko man laaj dama la koy ñaan autorisation nga koy sa boroom kër fu mu ne nga ne ma nàngam ma ne la ah numéro mën naa koo xam nga ne ma waaw ah mën naa ko woo nga ne ma waaw boo ma joxee autorisation boobu danaa ko xoo ma waaye ba ba guddi ba ba guddi ba suuf sedd ma woo ko téléphone ne kat man la sëriñ nangam dama laa soxla sa jawar kat nee na ma nangam ak nangam su ma la su ne mën naa ne ma ñëw seet la nga am na ñoo xam ne nag bu leen ko waxee dañ naan déet sëñ bi loolu ëpp naa def baal ma taal oto ñëw wala ma jël oto ñëw am na ñoo xam ne man maa leen di fekk su ma demee waxtaan moom ne la kat diw ak diw lii ak lii say lii yàlla si yàlla wax lii nangam ak nangam ak nangam boole waat leen ba ngeen nekk benn bu fekkee ne lu ñu leen dëddale bu ñu leen defoon la seen diggante yéen ñaar ma dindi ko te duma la laaj dërëm ñaata yoon def naa ko ci te xam naa ne am na vidéo bi ñu koy seetaan danañ xam li may wax lan la wàllu sëy wàllu xar wàllu ñaan yàlla noob noob moom soo demee lew nañ seen xale yi amagul huit ans wala neuf ans ñoom loolu la ñuy fooye ñun noob nekkul loo xam ne nii noob waay bëgg kenn muy bañ genre yooyu sëriñ bi gis nga noob moom dama lay wax le ne boo ñëwee lew na ña seen xale yu am 9 ans 8 ans ñoo koy foye kon nag ñun ñi moom loolu matuñu matuñu gont ndax am na loo xam ne tey bu ñu la ko defalee lu yomb la boo soree ay baat duñu lay wax la la wax ko nga def ko tëfle ko ci ndox jox ko mu naan gis nga xaj ak borom ni muy mel fu mu doon mu toq ko mooy raw xaj ak mu mooy raw xaj ak borom ci noob boobu noonu ci beneen bi si topp tamit mooy wàllu euh, nuñ koy waxee waxeeti comme école ubbi na te njàng mi dafa métti te fi mu ne nii daanaka jàng mi doy na waar te xam nga rek euh, nuñ koy waxee waxeeti xaalis amut privé yi ñi si jàng danaa leen laaye biir ñi nga xamee ne ni ñu ngi euh, seeni parent ñu ngi leen dugal ñu ngi jàng wala ay mag sax yuy jàng gaaw fàtte kiisu su alaaji Abdoulaye gi bi ñu toggee bopp xar bi man maa ko yor bu wér bi buñ la ko defalee nga jëfandikoo ko comme niñ la ko waxee nga lekk ko dem lépp loo bëggut a mokkal wala nga bëgg koo xam bu ko xool ndax lépp loo loo bëgg a loo bëgg mokkal boo ko xoolee moom kenn xaw kenn waxatu la kiis googu noonu nag boo duggee lew na seen ne kiis ak alaaj Abdoulaye Niass gi laa soxla rek bu boobaa da xam bu baax li ma lay wax lan la xam nga tey jii boo déggee ñu ne la du mbóot den du ko weer nangam nit kii du xam li muy xam dem toog fa du xam kenn du laf ji ndax fi mu ne nii naxaatikat yi ñoo bari nit ñi bëgg nañoo ñaan mais ñemewuñ jàpp xa moo tax man dama koy wax chaque jour man de maa ngi ñaan yàlla wax wu ma toogee sama kurus di ñaan yàlla wallahi heure bu ma demee bay tëj danaa ñaan yàlla képp koo xam ni yàlla namu ta faj aajoom yàlla bu ma xam ba di ma oo kon dama jàpp ne képp koo xam ne nii oo na ma rek gëm naa ne sa aajo war naa faju ci man waaw sa aajo war naa faju wàllu cat dafa sonal doomu aadama yi mbooleem loo xam ne nii cat koy def dafa bari te nit ñi ñu bari da ngay ñëw rek ne la lii ñu kii cat dana gàttuloo nit sax wërsëg dana umuloo nit dana ko tëj bu waatee jël CVM def ko ci nuñ koy waxeeti euh, ci société day tarde da ngay toog ba ci yaatu gis ko ci maire yi jaay caaf yenn saa yi sax nga dem di jënd caaf ñu laxasal la CV bi nga dugaloon loolu li koy def mooy cat bu dee liggéey la amul problème nit ki liggéey la rek wallahi li koy dindi ak a yomb def li ngay def jox ko ko mu sang ko wala mu naan ko wala mu suuroo ko incha allahu rabbi loolu ñu ko def loolu mu dañ moo tax boo ma ba ci gannaaw léegi yaa may laaj ci Ousmane Sonko liñ ko def ak nangam ak nangam lépp lu ko nit def yendoo koo def bu gudd jotee ma dindi ko ñun mouvement jeune marabout bi. lu def ngeen ay loolu moom xam na ko loolu moom loolu moom duñ ci wax sax ndaxte weer mboot la ndax am na loo xam ne ñun ñoo ko seq ak moom te xam ñu ñun xam nañ ko tey jii fépp buñ ko wooyee mu ne ñu diw kon ñun wuñ li ñuy wax. waaw wér wàllu paj nag danañ ci danañ ci danañ ci continuer di gën a dem ndax dag ma laal ndax dama mer ci ci ci ci jëfin yi ñuy jëf euh, sama waa ji loolu kese la lépp luy xam-xam bëgg naa nga wax ma ko tey incha allahu rabbi danañ listixaar ci bu nit yàkkamtiwul xam nga listixaar moom liñ koy defee kenn nit moo ñu woo ñu mën a guddi ñu tëdd def li ñuy def ba pare listixaar benn nit lañ ko mën a defal bu dee seet la nag moom junne nit mën na leen seetal ci jour bi mën nga ñoo woo téléphone ñu jox laaj la sa tur yaay ak sa tur lépp loo xam ne bëgg nga koo seetlu ñu seetal la ko wax la ko loolu moom mën naa nekk beneen bi ci topp muy wàllu ubbeekaay wàllu cat wàllu làmmeñ ñetti njaq yi nga xamee ni nii moom lay nit ñi réew mi nag di di di di laajte. bëggoon naa la laaj ñetti njaq yi de te ma ko wan. <laughs> ñetti njaq yi ñett yu waar la xam nga ñett yi. waaw ñetti yi. lim làmboo dafa bari mooy ñett yi mooy kaaraange bi ci njëkk bayree ci topp ak li nga xamee ne ni mooy kaaraange kii nu mu tudd wërsëg ndax tey jii boo amee bayre amoo kaaraange léegi tey nga dee boo amee kaaraange amoo wërsëg amoo bayre kenn du la sopp fii ngay nekk dund fi ba deete doo fi def dara soo amee wërsëg wu yaatu ba pare amoo tamit bayre amoo kaaraange daanaka amul la njëriñ ndax fa ngay toog fa ngay toog doo fi def dara lu nit xam moo tax ñetti njaq yi mooy kaaraange wërsëg ak bayre ndax loolu lay nit di ut ci doomu aadama ci ci ci àdduna bu ko amee mën na defar diineem mën na defar ay mbokkam mën na defar tamit ay jàmbur yi sa réew mi nga dëkk tamit mën nga cee def loo xam ne nii tabarkaal la ñetti njaq yi nag dañ koy defar te ñi ko xam sax bari na fi mu ne nii daanaka ñun waxatu du dugatuñ sax ci émission di wax ndax boo xoolee ñun émission li ñu siy gis sax bariwul tey bu ñu ko defee tey bu ëllëgatee ñu euh, danañ toog ay weeri weer yoo xam ne nii duñ def émission li ñuy génn lenn kese la ñu tooñ ñu xanaa xamoon ne tey jii bu fekkoon ne euh, dogale wuñ euh, cortège su euh, sama waa ji wallaay doo ma gis si si si si écran nii. dinaa la laaj ci benn mhm. seen benn mbokk ñu bëri ma jàpp ne seen famille bokk. mu nekk Cheikh Ahmed Cissé. Mhm. Cheikh Ahmed Cissé lan ngeen seq yéen ak wàllu ñu seq. waaw man de xam nga man da sëriñ bi man damaa baaxoo di wax ci nit. Ah, mais moom loo wax mu ne waa kër maam Khalifa wala kër maam kii waaw xam nga nit ku nekk rek. boo amee boo amee diine yaa ngi dégg am xam-xam ba pare yaruwoo loolu daanaka man say mbir sax man wallahi du ma ci sax du ma ko sax xóotu gis nga kanaa xamoon li ñuy wax ci moom ëpp doole gi yëpp wallahi duma ko seetaan ni damay envoyé ay waxam ne ma déglul nangam nangam wallahi dama koy supprimer gis nga man muy Serigne Touba Alaaji Malick Baye Khalifa Cheikh al Islam euh, Bou Kounta Ndiassane ak euh, Canaba boolem kilifa goo xam ne yaa ngi ci réew mi gis nga bu ma tappee sama lii bi di seetaan dégg nit naan sëñ Touba nangam wala laaj maal nangam ma toxal man damaa jàpp ne ñoom ñëpp benn nit lañ kenn la ñuy liggéeyal mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon képp ku ŋàññi kenn rek jàpp ne ŋàññi nga yonent bi moo tax man yooyu man duma ci wax te ku ma soo ma yabee ba envoyé ma ko sa dootoo ma ko envoyé wallahi su ma ne naa leen la lii nag bu ma bëggatuma nga envoyé ma alquran wala nga envoyé ma xasida murit wala nga envoyé ma xasida nangam moo ma gënal nga may envoyé lii ndax lii ban amaluma njëriñ te man lu ma amalul njëriñ du ma ci wax duma ci dugg kooku moom nañ ko bàyyi rek xam naa ne daal mu ngi noonu rek nañ ko bàyyee gone yi comme yàlla yàlla soppi daal waaw waaw yàlla na ko yàlla yërëm te soppi ko rek incha allahu rabbi dañuy continuer ak yow ba tey ñu lay laaj ci ñi nekk am ay jafe waaw Europe moom li ma waxoon sama vidéo bale laay waxaat ñi may seetaan xam nañ li may wax ndax seen jafe-jafe yëpp kayit la ak liggéey ñetti njaq yi na dama leen koy yónnee ba fañ nekk ku ko si jëfandikoo ay fan dang may woo téléphone ne ma sëñ bi ah macha allah te man li ma gën a neex ci mbir mi mooy da ngay toog rek sama téléphone wone bu sone ma ne allo ñu ne ma euh, diw ma ne waa mu ne ma diw de moom ma jox sa numéro nee na naa la woo ñetti njaq yi ci laa bëgg man loolu rek kon man li may def man xam naa ne am naa ci résultat beneen bi leen di teg ci mooy àllu kayit wallahi lu ne daj nañ ko man de billahi dana ma woo jooytu ma lu ne façon xaalis bu ne mu dépassé ko si sëriñ pour affaire u këyit wala nangam këyit am ko dafa nekk loo xam ne nii wàllu jinde la wàllu ngelaw la te nit ki boo xamul loolu mënoo defal nit ki këyit mu ne la këyit laa bëgg nga jël benn lii joxe këyit rek jox ko ko te xoolool li nekk ci yaramam xamoo biddiwam xamoo lan moo kii bi nu mu tudd fa mu nekk euh, rawxaan ba fa ne xamoo dara toog re ne da ngay def këyit wàllu këyit këyit moom jamono ji ñu toll buñ ko xoolee ba xool wàlleew nañu seen yii nit gën leen ko xam loolu jafe na trop kayit moom fi mu ne nii jamono ñu ñoo si toog ndax am na ñoo xam ne ñu ngi jëflanteek ñoom ci wàllu kayit wallahi ci am ci ay résultats nit nañu dugaloon nañ amoon nañ ci jafe-jafe bañ ñu xamee bañ leen joxee liñ leen jox am ay baat yoo xam ne buñ la ko joxee booy dem nga wax ko boo demee wallahi boo demee kayit yi génn loolu moom man maa la ko wax waa bitim réew li ñuy wax li may wax ni man seet xam nañ ma te dañ may seetaan te nañ li may wax bu baax a baax a baax ndax man xam naa li ci fen du ma wax lu ma gëmul du ma wax lu loo xam ne nii amul ndax lépp lu ma wax damaa jàpp ne bés penc danaa taxaw ak suñu borom layoo ko ko ne ko bés ca mu ne ma bés naa bés sàngam waxoon nga nàngam ak nàngam te lan moo tax nga ko wax te mënoo ko te sama bàmmeel man rek maa fay tëdd keneen du fa tëdd alalu àdduna lu ma loolu bu dee loolu ma toog sama kër. nga jigéen yu bëree bëri dañuy bëgg a ci néegu sëy mais mën noo gis ku leen ne koŋ-koŋ la may waral loolu. waaw li ko def maanaam jigéen ñu ci baari fi mu ne nii xam nga lu tax dañoo yombalal maanaam seen rab seen bopp ndax jigéen ñu ci bari duñ sol yére te yow diine lu mu la wax boo dee jigéen boo dee jigéen liñ la may sa xar-xaram lañ la may sa lii ak sa lii. sol yére ñu ngi génn ci mbedd mi kay waaw du def yaramu neen ci mbedd mi yow sol yére yoo xam ne nii boo ko solee yow ak def yaramu neen yéen a yem boo solee yére tey waaye yonent bi waxoon nañu ko de nit dana sol yére ba pare rafle jigéen ñi dañoo rafle lan mooy loolu sol yére par rafle yow da ngay sol benn yére jëndee ko xaalis bu seer lu seer nga koy jëndee sol ko ngeen baal ma si kàddu gu say ween ne fàtt ci biti te am na ñoo xam ne tey jii boo gisee nit ñu baax ñi pour nit jigéen jurati leen fii ci àdduna bi waxuma ne du am de mais du yomb ndax sa xawra gis nga sa say ween da nga ko war a denc sa doom ëllëg dafa war a am nu war a mel mu génnee ko nga di ko ko jox mu di ci nàmp mais nga génnee ko ci mbedd mi fu waaye toll di ko gis rab yi kanaa xamoon ne loolu lañ gën a soxla ñoom xawra moo leen gën a moo leen gën neex ci mbir nga sol sa tubay mu seere lool foo romb ñu naan xoolal diw nangam ak nangam loolu moo leen ci neex mais mu ngi leen di rey ñaata nit ngay toog ñu am 30 ans wala 40 yoo xam ne nii mënuñoo am jëkkër waa nag jigéen sol xanaa bëgg na bu génn ñu ne ko toj nga fi. waa mais nga sol lu baax yére moom kenn waxul ne bu nga ko sol nga sol sa yére yu jot yu yiw ku la gis ku nekk gis nga marchandise boo ko muuree ci lay ëpp njëg waaye ku bazarde sa bopp hay dara sa yoo gis da ku ci waree sa bopp nit ku bon moom it gis la takk la yóbbu la du ngeen am ay fan mu mooy ba sëy ba tas ñaata sëy moo fi tas kenn xamul ni mu toll yu bëri mu ngi tas yoo xam ni daanaka amul benn njëriñ tey dégg naa it mbirum ngóora moom macha allah. waaw wàllu ngóora moom xam nga li ma ciy wax chaque jour rek moom laa ciy wax ngóora li koy waral dafa bari ñetti mbir yoo xam ne nii mu ngi ci nit ku ko xamut waroo engagé wu ne da ngay faj ngóora bi si njëkk mooy ndoxam siti day waral sa ngóora di wàññeeku hémorroïde day waral sa ngóora di wàññeeku beneen bi si topp tamit wàllu rab kattan wàllu rab mais yow tey jii nit ki am hémorroïde xam nga bu ma déggee ñu ne man nit nee na day yokk aw raak yu demee noonu du ma ko weddi de ndax xam-xam moom dafa sori waaye man góow ma ko ndax waxoon naa ko sama vidéo bale ñu bari génn di ma attaqué waaye nag man noo ma problème yooyu man dëgg rek waaye sëñ bi gis nga sa cër yii yi la yàlla jox noonu la mën a yem da ngaa feebar problème bi feebar la ndax ndoxam siti ak li nga ndoxam siti dafay lakk sa ndoxam siti moom fi mi fi mi fi mi gën di vocaliser wu sa ndoxu man yu moom lay lakk indi fi maladie boo xam ne nii ndox nu ñu koy waxati ndox mi dootul am doole pour am euh, doom mais da nga def rapport du la ko tere mais li nga xam ne mooy hémorroïde xam nga awra ci suufam nii benn sadit moo fa nekk sadit boobu noonu mooy yëkkati awra bi tey jii boo demee ba nga xam ne am na hémorroïde mu son commencé la sonal sadit bi day lemu par ndànk di lemu par ndànk di war a moo waral sa awra bi di dellu looloo waral awra bi di dellu léegi nag yow tey jii bu fekkee ne nit dafa am problème mu euh, kàttan ñëw ne la awra bi sama awra bi kat dafa commencé euh, kii damaa gaaw a yëg sama bopp nangam ak nangam ak nangam boo amee ndoxam siti am hémorroïde ñaari yooyu noonu yow sa awra bi di gàtt sa ndox bi baaxul day gaaw wàcc ndox bo soow boo koy wayal def ko si kaas bu soow bi woyut boo defee nii du nu mi def day gaaw a tuuru mais bu woyee nu mi def mën nga koo def nii fëgg sax da nga koy def du wàcc ndox moom noonu laa la ko mën a misaalalee wàllu ngóora dafa nekk loo xam ne képp ko xamul ñett yii waroo cee dugg ba di ko faj ñu ngi ceeg yu ko efficace nag yoo xam ne nii bu ñu la ko joxee deret bi nga xam ne dafa amoon feebar deret ji da ko da koy raxasaat ba set maladie bi ndax heure boo ko commencé di jël da ngay gis ne boo daan tuur ndox benn yoon ci journée bi lu ma ñett yoon wala ñeent yoon da nga ko ndox kon loolu moo la xamal ne am na lu muy raxas si biir sa naq bi li saqoon yëpp da koy da koy lii dañ ciy defaale wàllu wàllu wàllu kii nu mu tudd hémorroïde sa awra bi nga xamee ne da doon da koy kiyaat ba sadit bi commencé di tàlluwaat di dem yaa ngi dégg dañ ciy defaraale ay aaya alquran yoo xam ne nii mooy euh, rab da koy dindi ñu boole ko jaxasoo la nga jox nga koy naan soo commencé def une semaine bu soobee yàlla boo commencé jëflante ak sa soxna ah danga xam ne wallahi liñ la jox te li gën a yéeme fii lañ ko defaree ci réew mi. Ah? man maa koy composé ak boo bëggee ne. waaw xam nga maam El Hadj Abdoulaye maam bépp gàncax boo xam ne nii mu ngi ci réew mi. def na ci euh, def na ci taarix wane ne lii lii lay faj lii lii lay faj lii lii lay faj boole ko ak ay ay aaya alquran yoo xam ne ni mu ngi fi te mu ngi fi téere bi nag mu ngi fi bàyyi na ko fi te téere boobu bokk nañ ci ñi nga xam ne yor nañ ko ci loolu la ñuy faj léegi yooyu noonu nag consommé local ñu koy wax nit ki fi nga feebaree fa nga war a fajoo yoon di bi wax nañu ko jéggaani paj xoolal ba bi bi Covid bi ñëwee dañ amee problème ñaata kilifa yoo xam ne nii fii lañ dañoo amoon feebar dañ daan faju ji bañ tëjee aéroport yi dañoo dee pour lan loolu léegi yow li nga am mu ngi fii fi nga feebaree ci réew mi am na lu la fi mën a faj na loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax wàllu woowu noonu am nañ ci garab muy wàllu ngóora ngóora moom kàddu kër gi képp koo xam ne soxla na ko wallahi bés bu ñu la ko joxee nga commencé jëflanteek ak sa soxna da xam ne li nga xam ci na te li gën a li gën a neex du la bàyyi benn effet day mel ni dalay delloowaat xale ndax ay maladie ndax xam nga nit man góor war naa am quatre-vingts ans di di am doom mais léegi fi na ne nii boo amee soixante ans dootoo mën a am doom xam nga lan moo ko waral lekk gu bon gi ñu def ak maladie yi nga xam ne nii moo nekk ci yow maladie yooyu noonu nag lay garab gi di raxas nga mën a di continuer di di sëy sa jabar di mën a ngente di am doom yooyu yëpp ñu ngi koy defee ci wàllu gàncax gi nga xamee ne nii moo nekk ci réew mi gàncax googu dañ ciy faj asma dañ ciy faj hémorroïde dañ ciy faj jabet bi ñëpp dañ koy faj jabet jabet soo demee hôpital bañ baare la bañ ne sa tànk bi dañ ko war a dagg wala nangam ak nangam fexeel jokkoo ñun wallahi traitement bi bu ñu la ko joxee soo soo wérut jëlal suñ téléphone suñ numéro téléphone wala nga coupé lii nga xam ne moom la ñu wax nga wërle ko ci àdduna bi yëpp ta euh, ne sëñ bi moo ne woon daf maa kii jox naa ko sama xaalis mu lekk ko day fen man maa la wax loolu wallahi dama koy faj jabet ak ballottement bii dañ koy faj estomac bi nga xam ne moo tëj ñëpp boo ñëwee ma faj la léegi yëpp nag liñ koy fajee mooy gàncax gi nga xamee ni mu ngi fii ci réew mi ñun jég waruñoo jeggaani dara soo gisee wax ji moom xam naa ne da nga ne ku somp Sonko nga waaye danaa ko waxaat soo déggee mu naan consommer local dañoo war a xam ne ñun dañoo war a am li ñu am dañ ko war a exploiter wallahi lii ñu am bu ko tubaab bi amoon barke alquran duñ lëngoog benn réew ndax lépp loo soxla am na ko bu dee mbay la am nga suuf ah bu dee nuñ koy waxee te gaz la feeñ na fi pétrole feeñ na fi yow am nga suuf am nga lépp yow doo exploiter loolu nga dundee li nga war a dundee mais di jéggaani ay dund bi ngay dund bi sax da nga koy jéggaani pour lan loolu moo ñu indil problème feebar yi ngay gis yi yëpp mais avant loolu mosoo koo gis ay estomac ay yi kañ la mos sonal biñ commencé di jéggaani lekk gi ñuy lekk ak naan yi naan lañ am problème mu feebar yooyu feebar yooyu nag képp koo xam ne dal na la muy jabet muy estomac muy ballonnement yaa ngi dégg muy euh, jigéen gu taxaw koo xam ne da doon sëy am nga doom benn yoon dem ba ci yàgg mënatoo am doom dem nga hôpital ñu xool la ne gisuñ benn feebar boo ñëwee ñu defal la loo xam ne nga commencé ko jóg te ñun ci alquran rek la ñuy faj ak gàncax gi amuñ leneen lu ñuy fajee lu dul loolu ndax alquran bawut dara ma farat naaw fii kitaabi min shay'in jigéen bu mënoon am doom da ngay dem boo ñëwee woo ñu téléphone dañ la ebal hôpital nga dem ñu nga xool ko ndax mbir moo xam ne am na loo xam ne ni yàlla jëlul xam-xam jox ko nit jox ko ku jox ko benn nit dana am koo xam ne dana la may lii dana am loo xam dana la may lii da dem ci hôpital ba boo ñëwee ñu yebal la ci hôpital nga dem hôpital ñu xool la lan mooy sa problème xool ne sa organe yëpp mu ngi dox waaye yow yaa ngi sëyeeg sa sa sa sa sa sa kii euh, sa jëkkër mënoo am doom bu boobaa nga ñëw boo ñëwee ñu xam lu ñu la defal te booy ñëw nag dañ la proposé bu mën a nekk ndax am na ñu bari ñoo xam ne nii problème bi du seen jabar seen jëkkër ji ñooy am problème ci wàllu ngóora li ma la doon wax ci wàllu kii nu mu tudd ndoxum siti mu lakk seen seen seen man yu bi ba doole ji mu war a am pour am doom du ko mën a am yaa ngi sëy ak moom nag di yëg sa bopp def lépp mais sa ndox mi moo baaxul mënoo am doom nga bàyyi jigéen gi muy dem di faj ji rek ndox mi bu baaxul doo am doom mais boo ñëwee nga ma ma proposé ne la su ma sañoon nga ñëw ànd ak euh, sa soxna nga sa sa sa jëkkër wala nga jox ma numéro ma woo ko ma woo ko wax ak moom waxtaan ak moom wax ko li ma koy wax mu wax ma ko bu xoolee ne ndaw si bu njëkk ba nga koy takk nam ko doon mën a satisfaire bu baax a baax wàññeeku na xanaa xamoon ndox boo xam ne ni dafa am maladie moo waral euh, kii euh, gaaw a gaaw a wàcc ndax da ndox bi du way boo ne ngilim la ci rek bu daa daanu léegi nag man soo ne su ma la expliqué léegi nga wax ma man danaa xam ne carrément yow li la dal bu boobaa ma jël garab yi jox la nga nga jëfandikoo boobaa soxna sax du ma ko jox garab yow laay jox garab nga nga nga jëfandikoo ko xool ba xam buñ toogee weer ba xam lii danga nga am wala du am ndax paj dafa am yoon. maa ngi door la solution. waaw xam nga mbir wallahi solution bi tuddee wu ma ko sama bopp wallahi nit ñi ma ko tuddee barke Cheikh Tidiane tuddee ko sax sama bopp waaw ndaxte gis nga doomu adama euh, dem fu nekk wër fu nekk ngir faj benn mbir mu të ñu jox la numéro bi ne la wool diw nga woo rek nga ñëw saafara ko ci lu yomb xam nga kooku. ak lu métti métti métti boo waxee sax danañ la tëkkaleeg foo xam ne danañ la teg foo yegut waaye loolu ñu ngi ciy sant yàlla ñun moom lépp loo xam ne nii def nañ ko wala nit mënuñu koo wax tamit dañuy sant yàlla xam nga lu tax wa amaa bi ni'mati rabbika fahaddis ñun dañuy sant yàlla rek duñ bàkku mukk nag xam-xam bi ñu yàlla jox jaamu yàlla yi moo ñu ko tax a jox ñu neexoon ñu toog fañ dëkk lew nañu seen nit ñi de sama suñu taalibe dañ ñu siyaare si danañ bay ba bay ba bay ba bay ma jeex ñu dajale dañ xam indil ñu yaa ngi dégg suñ soxlaa dara woo leen ne leen dañoo soxla nangam ñu dajale ko indil ñu waaye xam-xam boo ko amee nit feebar nga toog fa nga toog nit feebar war nga war koo faj fajoo ko boo lëggatee bu dee yow am nga ci part de responsabilité moo tax xam-xam bi ñu yor dañoo bëgg génne ko di si jariñ doomu aadama yi loolu rek moo tax a jóg du leneen. ñu lay bàyyi nga tënkal nga doon tëj. waaw macha allah comme niñ ko waxee ñëpp rek biñ ci njëkk biñ ci biñ ci biñ ci kii mooy ñi sonal bi sonal ñëpp mooy wàllu ngóora bi nga laal léegi. ñu ngi ceeg ay mbir yoo xam ne macha allah képp koo xam ne nii seet si nañu jël numéro yi danañ ko dugal wallahi boo ñëwee bu ñu la ko joxee ba nga commencé ko jëflaa jëfandikoo da nga xam liñ la jox bu baax a baax a baax te amul effet doo ko def mu jox la maladie wala mu lay def leneen def loo leneen wala leneen naturel lañ lay jox beneen bi su tekk muy wàllu estomac estomac boo mën a am soo jokkoog ñun wallahi ñu fajal la ko ballottement bi nga xamee moo sonal ñu bari sa biir bi def air di ngalaw di ngalaw ngay loolu yëpp macha allah boo ñëwee seet suñu danañ la ci danañ la ci laay biir leneen bi si mooy wàllu hémorroïde bi nga xamee ne na ñu bari te koo dem mu ne la damay faj hémorroïde te boo ci boppam sax dafa hémorroïde xam nga loolu dafa danga nga doy dafa doy waar léegi kooku noonu nag bu ñëwee incha allahu bi danañ ko faj ki nga xam ne dafa yor jabet dem ba toll ci benn degré bi mu nekk un wala mu deux wala trois lu mën a doon soo ñu ko waxee ñun wax ñu nan ngay dundee dañ xam fan la toll ci yow su boobaa jox la garab gi nga jëfandikoo nga xool yow yaa ñu woo ne ñu nangam ak nangam sant yàlla ndax gis nga xam-xam soriwut gis nga li fi maam yi bàyyi woon ku ko fi baax dangay sonnu rek waaye yàgg-yàgg danga ñëwaat fii kanaa xamoon ne perte balance bi jigéen ñi di di di di di kii nii di dem hôpital ak yooyu noonu ñu lay jox leneen gis nga laaj moo ci gën a gaaw benn laaj boo xam ne nii danga ko koo xolli ba mu baax nga jël ko bënn ko takk ci buum booy booy tëdd yow jigéen gi jël ko dugal ko sa kanam ko ci ba soo xëyee génnee ko wallahi lépp luy perte balance raxas na ko te loolu ci réew mi la ne xam-xam soriwul nañ dem ci barab yi nga xamee ne ni ñi am xam-xam ña nga fa ñu dem fekk leen di leen laaj ñu bàyyi ñii jël di leen tàllal micro yi ñuy wax loo xam ne gëmuñ ci dara yooyu daal lañ point yooyu laal lañ xam ne danañ koy danañ ci jëflante ndax ñun mënuñoo xam lépp nag bay faj lépp waaye lii ñu leen sital na wax leen ko képp koo xam ne bëgg na ko bu ñu wooyee danañ danañu jot te bu ñu jotee li ñuy war a jëflante ak ñun ñu jëflante ak ñun ndax ku bëgg dara dangay def dara nit ku nekk sa soxla nam la toll rek jëfeel comme noona ñu jëfee ñi nga xamee ne ni ñun lañ la bëgg jëf ne la ñu kiyee beneen bi topp école bi ñu waxoon nañ ko mooy kiis ak Mame Alaaji Abdoulaye Niass gi képp koo xam ne nii sa doom mu ngi jàng nga bëgg mu réussir si njàngam lu mu bëgg lu mu gis ku nekk rek làkk bu mu mën a doon bu ñu ko ko bindalee mu mën koo xam wooñu ñu jox la kiis googu nga jëfandikoo ko nga xool kiis gi loo bëggut mokkal bu ko xool loo bëgg a mokkal boo ko xoolee yàlla def nga ma muy góor nag muy jigéen muy ndaw muy mag ñëpp mën nañ koo jël utiliser ko waaw kiis googu dañ koy defar képp koo xam ne nii am na ko bëgg na ko bu wootee ci numéro yi dañ ko def beneen bi si topp moom muy li may tëjee mooy nguur gi fi nekk nañu sànq nañu sàmmal Ousmane Sonko ndax mënuñ ko sànq nag dafay wax jee bari rek borom ñaari leer la yàlla moo ko taalal ay projecteur wan ko fi muy jaar fan la ku yàlla tracé na la jaaral fii nag yow nga ne tracé bi da koy faar yow yaay xalaku képp koo xam ne ni ne yaa ngi jug ne yaa ngi jëflante moom ci baatin mën nañ koo xam ndax heure balaa ñoo tëdd am na dog boo xam ne chaque jour wallahi dañ ko koy defal 77 jawaratul kamal bala maa tëdd si kaw kaw lal danaa ko defal Ousmane Sonko yàlla xaar ko ak mboolem patriote boo xam ne ne yaa ngi ànd moom ci wàllu euh, lii bi maa ngi lay jox euh, lii nga di ko def bët bu set buñ xëyee bala ñoo ànd bala ñoo dem fenn ku ci génn di war a topp cortège bi yaa xayu mu qayyumu bi rabbika astaxis na koy def cent onze fois yàlla dana leen xaar dana leen suturaal te liñ bëgg yàlla dana ko def kenn mënu ci dara taw tawhan aw karhan ñu ngi sant yàlla bu baax di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jéggalu ñi ñu doon seetaan vidéo bi gudd na waaye nag ku ñu dégg xam ni ñuy waxee xaal la ñuy waxee ndax dañ sun maam xalifatu xaaji muhammad daana faj soxla lim ko daan fajee muy gàmm jot wala yii am nit woo ko di ko laaj ci xam wala nit toog ak moom di ko laaj ci xam mu toll fenn fi ne ku bëgg maqaama nangam wala ku bëgg alal nangam mu nga ne diw mu ne la demal nga indil ma nangam ma branché ko Seexu Tijaan a ngi nii yonti baa ngi nii lu mu wax man ma def lu lu nit bëgg na ko wax nga jël loolu jox ko yàlla def loola kooku nag moom mooy suñ maam tey olof nag dafa ne li si maam kon nag alhamdulilah ñu ngi leen gërëm di leen sant salaamaaleykum wa rahmatullah